waay fii xal ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi fay say facture ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site www point Eric Favre tiret nation point sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi donc ñu ngi koy ñaanal ñu koy ñaanal yàlla xaare ko ajjana mm-hmm. waaw ajjana jégal ko ay bàkkaaram mm-hmm. waaw di ñaan njabootam aussi yàlla may na xolu muñ mm-hmm. may na xolu muñ vraiment ay champion yoo xamante dina dinañu manqué làmb waaw nañ ko manqué làmb mais nag ndogalu yàlla bu ñëwee rek waaw ko nañ ko nangu waaw ndeysaan alors euh, Ali. xam nga xam xamante nga ak ñaari champion yooyu. xam naa leen Tigo xam naa ko ci làmb. maak frère am ñoo bokkoon Ikiri jamono yi may bëree. Brise de maire bokkoon nañ benn Ikiri Dóor waar. Ikiri Dóor waar. waaw ñoom ba ñu quitté Ndakaaru. Mhm. ba ñu defee door waar man bokk naa ci éléments yi fa njëkk dem. Mhm. waaw bis nekk nit ko oyof Baye Fall. Mhm. nit ku baax. moom Saalum Saalum mu ngi dëkk booru Koungheul. Oh, ok waaw comme man Saalum Saalum loolu tax ñu teel a miinante boo ñëwee mu ne ma kaay sama mbokk Saalum. léegi tout le temps bu ñu ñëwee entraînement balaa ñuy commencé. Mhm. ñun ñooy toog di waxtaan lu bëri. moo tax affaire bu ma ko déggee dafa maa def problème. ndax Brise nit nit nit nit ku oyof la nit ku baax. Ah, yàlla xam na ko. Mhm. waaw yàlla na ko yàlla xaaree aljanna. nit ku champion dem na daal. nit koo xamante nii xolam dara nekku si. moom bu la xasee jàpp rek jàpp na la tout le mhm. temps da lay nemmeeku si loo nekk booy entraîné nii ngay def nii ngay doxalee. xam nga ñoom ñoo ñu féetee mag. waaw ñoom ñoom entraîneur yi grand fadal ñu ngi leen koy jaale. ko jaare Yékini Junior ki jaare ñoom Malick Niang ñu mu nekkaloon fee ñëpp ndax ñoom ñëpp fekkante naa ak ñoom foofu noonu mm-hmm, mm-hmm. waaw dem ba benn moment samay parents tere ma ba bëre ñu jee arrêté quoi ñu koy jàllale aussi vraiment euh, staff technique bi muy sóoru fan. waaw mhm. waaw moom moo leen mos a yore. effectivement waaw Yékini Kal euh, de Guerre. waaw Kal de Guerre bëreetul mi ngi mi ngi point. waaw mi ngi point moom lënd bi doon mi ngi cere sorol aussi. ok waaw mi ngi fa mbaxalu Saloum moom mooy. mooy plaw waaw ñu ngi koy jàllale bu baax vraiment. <laughs> di ko jàllale écurie Dakar yëpp daal. Mm. waaw vraiment. macha allah alors. waaw dañuy wax dañuy wax ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mm. ci yàlla lañ jógee ci yàlla la ñuy delluwaat. et c' est des c' est des jeunes yoo xam ni yàlla nañu mottalee seen ndaw ci barsaaxul Seydina Ibrahima. amiin yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. yàlla bu leen borom bu topp dara. amiin eh, kenn ku si nekk si ñoom illustré wu woon nga. dans le milieu de la lutte. Euh, Brise de Mer bon vraiment euh, ci diggante bi am na ay tolof tolof ci wàllu làmb ba xawoon ko gàllankoor tuuti. mais il était sur le chemin du retour. lii nag moo neex yàlla mu defee ko ni. Euh, Tigo xaritu yaayam dàkkantalam rek moo taxoon na mu mu représenté woon quelque chose. xaritu yaayam. Mm-hmm. c' était un gosse boo xam ni bon moi je l'ai connu à Pikine mais xale bu yaru la bu bëggoon li muy def bu àndoon ak dal ak teel mhm. ñoom ñëpp dem nañu ci mbetteel dem nañ demin bu metti waaye nu dem nañ ci demin boo xam ni yaakaaru na ndax euh, ñun dañuy wax ni am na demin yoo xam ne boo ci demee yàlla du la topp dara yàlla na leen yàlla boole ci loo boobu ñu ngi koy ñu ngi koy jaal monde de la lutte yëpp di ko jaal seeni famille tamit mhm. di ñaan yàlla yàlla na dégg ci milieu bi Eh, déglu déglu na affaire bi fekk ma Touba la mu fekk tamit. mais mm. xibaar bi Touba laa ko déggee sax. ñoom ñaar ñëpp ah. Mm-hmm. Touba laa ko déggee mais axlu lamb lay jaale ndax axlu lamb moo ñàkk. Mm-hmm. waaw axlu lamb ñoom ñi ñëpp mën nañu ko jaalante parce que ñun ñoo ñàkk ay champion xam ne ay champion yu def dara si lamb lañ quoi. di leen yàlla yàlla xaar rek àjjana. ñoom ñu fa fekk ñu leen fa fekk ñëpp. Mm-hmm. daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di rappeler que Tigo mu ngi ñàkk mu ngi lab ak ñetti xarit ñaari xarit xaritam yi Tigo Tigo moom tuddu tudd Richard Gomis di Tigo xarit bu eh, keneen ki mu ngi tudd Njaafu Antoine Mendy ak eh, DJ Silva donc oh. eh, Njaafu Antoine Mendy xar mbokk kii la Blaise Blaise Blaise Silva un grand amateur de lutte un grand soppe bu sunu lam donc Tigo moomu nag. sëñ Bamba yaa ngi doog a ñëw ñu ngi lay ziar ah, xamante nga ak Tigo defal leen formation mhm. euh, formation garde mhm. am na benn élément bu ñu am sax nga xamante mu ngi def témoignage ci yow mhm. di période def naa technicien bi da koy dugal léegi mun ko seetaan ñu ngi lay féliciter si émission bi yaa ngi ay ndaanaan nag plateau bu ala dawme la du xam nga Père Ndiouga Dia bu baax waaw bu baax voilà donc Babacar Diop ak président écurie Fass Benno ci mbër la woon hmm, Ali Ali Gueye waaw ñu lay lay ziar bu baax macha allah dembale waaw dañuy euh, sant yàlla rek julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa euh, di nuyu ñi fi toog ñëpp di jiital ci nuyu bi dembale Euh, franchement yow nit ku baax nga. merci loo xam ne sànq bi nga ma woowee yàggul. wallaay tamit nit moom. ñu mm-hmm. nit ay alalam. suma carrière aussi bi ma jógee Europe ñëw. Mm-hmm. taxaw ci li ma bëgg da nga ma ci jàppale. borom télé bi aussi nekk jeune boo xam ne il est très engagé. très déterminé yaru. Mm-hmm. nag soo ma wooyee lu ma jàppoon naa ko bàyyi. fekk fi tamit ay ndaanaan ñu baax. Mhm. Euh, ki nga dendal soose la. soose xam naa ni moom dañuy gëj a gisee. parce que man faas laa juddoo. Mhm. des fois sax damay seetaan télé. dama mhm. je me demande am na benn maire bu nekkoon marché Fass maire Lissa. Lissa wax waaw léegi nag euh, maa ngi doon xalaat ndax mooy sa yaay wala déet wala et tout quoi. Oh, parce que ñun waaw ñun Fass fa lañ juddoo fa lañ defee lépp Thierno mm. Diop. ma nijaayu Adama Gueye. suñu kër la la nekkoon. gis bu baax ni nga ni nga kon nag eh, yàlla na la yàlla taxawu di nuyu suñu père juga moom it wax dëgg yàlla taxawaayam ci làmb gis nañ ko bu baax franchement yàlla na yàlla taxaw bu baax sëñ bi moom mbay borom baax la président Fass Benno moom c'est un exemple dans ce pays parce gis nañ ni am na yar am na teggin oh. te mu ngi promouvoir làmb ji oh. suñu frère bi aussi tamit oh. macha champion la kon nag ñi leen di di am kontaan ci invitation bi. lay wax si Tigo ak Brise Brise am na nakar rek mm-hmm. waaye nag euh, yàlla moom suñu borom kenn du xëccoo ak moom parce que lu ko neex lay def mm-hmm. waaw ñaari jour yu metti la yoo xam ne tegloo na mm-hmm. brise de mer nekk xale bu yaru moom boo xam ni franchement man mën naa ni bi ma jógee Europe lambam laa njëkk a dem mook Alioune Sèye junior oh jour boobu man jour làmb boobu li may namm namm làmb toog quinze ans dew ma ci làmb bi ma nee cëpp Sénégal stade Iba Mar du ma ko fàtte mukk moog Alioune Sèye junior ñoo doon bëri ci laay wax toujours père Ousmane Diouf ci la ñu xamante après loolu aussi gis naa ci moom am na yar am na teggin mhm. parce que daan nañ dajee muy rafetlu li nga xam ne maa ngi koy def ba amoon na yéene sax bokk ci waaye xëy na yàlla moo ko dogalul ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana mhm. yàlla yërëm ko ñu ngi koy jaale waa ahlu lamb yëpp mhm. Tigo nag moom sama njaboot la parce que moom yàlla dafa def euh, ñi ngi xamante ci formation en deux mille vingt deux seen promotion ñoom ñooy promotion cent vingt lutteurs yi ñu formé muy ñoom Alioune Seye numéro deux mm-hmm. ñoom euh, Gabar sin Gabar Sine ñoom euh, euh, ñoom Thiaka Faye ñoom Usine Doole ñoom promotion boobu noonu après ñoom musa Gueye numéro deux mm-hmm. ak ñoom Kona mm-hmm. ak ñoom Eumeu seen Junior mbaytin Tine ak Quench ak Nekoural ñoom ñoo ci topp mais mu nekk un jeune boo xam ni un jeune très déterminé Tigo booy bu baax mi ngi noonu. Mm-hmm. booy bu xam boppam. Mm-hmm. te man lép lu may wax ci moom rek xam naa ko. parce que formé naa ko liggéey naa ak moom. Mm-hmm. parce que jël naa ko yóbbu ko ci barab mu def fa un an di fa liggéey. fii ci jaxaay kër mère Khady a Gaye mais mu nekkoon jeune boo xam ne aussi am na fula ci boppam. Tigo booy bu amoon fula la. parce que toujours dama ko daan wax dama daan wax Bamba man formation bi ma gënoon yàkkamti. mooy développement personnel. nit nan lay def ba xam boppam gëm boppam. Mm-hmm. parce que man toujours rek may bëgg li may def ma koy xam. Mm-hmm. di ko wax. Mm-hmm. mais macha allah gis ay qualité yu am solo la am. ba pare tamit nangul ma parce que li gën a jafe mooy nit ki nga jàppale ko. te nii comme ndaanaan yi fi toog rek ni ñuy jàppale jeunesse su la ji. mais tey di ci gis ay jeunes yoo xam ni. mën nañoo fekk soose toog ñu woo ko di ko nemmeeku du xaalis bi. mais le respect. bi ñuy jox père Ndiouga wala ñu jox ko jox ko jox ko mhm. jox ko kilifa yi dafa am solo mhm. mais Tigo daana lu noon toog deux semaines mhm. yoo xam ne du jël téléphone am woo ma wax ma ci lu mu ne xamal ma ni Bamba yow waroo ñoo dégg ci lenn lu la nakari parce que formation cinq cent mille lañu waroon a def nga ñëw defal ñu ko gratuitement ba pare boole ci wutal ñu wutal ñu liggéey am naa quatorze combats tey jii nii xaw ma toog naa deux ans bëréewu ma tey da nga joué sama carrière ba récemment rek sa fait deux semaines formation secourisme bi ma jee def daf ma woo wax ma ko Tigo sol nay dàllam dem ba ci Pape Malick Ndour yëguma tinuma boobu moo yor de la jeunesse uh-huh. nee ko ki mën a jàppale dëgg-dëgg ci ndaw yi hmm. kenn la muy Bamba Mbuub Pape Malick moo a wax loolu noonu uh-huh. kon nag man maa ngi koy jaale famille am uh-huh. ak ñaar ñi mu gënal àdduna wax dëgg yàlla démb Euh, nekk am naa lu ma métti trop waaye nag yàlla kenn du xëccoog moom mm. Mm. nekkoon booy boo xam ne doo xam ne sax chrétien la mm. doo xam ne sax njaago la parce que dafa boole woon jullit bi ak kii bi yëpp boole ko dégg olof nag na ma ko daan tooñee njaago bu dégg olof ko yow man musuma ko gis booy bu baax la booy la boo xam ni wax dëgg yàlla c'est un exemple mm-hmm. nekk tamit ne un un un esprit man sama papa da ko bëggoon ak waa mm-hmm. association FILS mm-hmm. tey sama kilifa yi ma daan àndal yëpp franchement dañ ko bëggoon moo tax bi may ñëw sànq témoignage bi nga xam ne jot na ko def day baax xale yi aussi déglu ko am na solo kon nag ñu ngi koy jaale waa Ahlou Lamb yëpp mon frère merci beaucoup merci beaucoup kon ah. nga demee donc ñu ngi leen di jaale seen i njaboot di ko jaale suñu bopp ñu ko jaalee ak lu làmb di leen jaalee ak lu làmb également on a perdu deux ndaanaan mhm. ñaari champion yi am nekkoon très correct vraiment Mm-hmm. ah le combat de Boy Niang ah, Brise Mer loolu moo gën a lancé sax sa Boy Boy Niang parce que mm-hmm. Boy Niang moo nekkoon je pense son premier grand combat mm-hmm. le promoteur Assane Ndiaye Bawol production moo tëggoon combat boobu Boy Niang vraiment wonee fa boppam ba mu am escalier yegg fu mu yegg fu mu tol nii ba di bëri combat royal donc la lutte a perdu de grands daanaan des jeunes très corrects très ambitieux partis à la fleur de leur âge donc noonu la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 ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn e wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi